basuma basuma mbare sukannonko abije iba famale dia nafiyo nafiyo koy là où nous sommes la prestation de serment et de passation de service focus vers l'émergence et le développement du pays focus il faut que nous soyons focus il faut que ñu xam fi ñu jëm xam li ñu bëgg xam niñ koy tegee xam ak ñan lañ koy tegal Bassirou Diomaye Faye ñu ne monsieur le président Ousmane Sonko premier ministre man ñaar rek a ma intéressé mooy affaire étrangère Mimi Touré bu fa demee si je pense bien dàmbooj bu ñëwee éducation ndax mooy sama problème mais balaa loolu ñu ñëw ci démb cérémonie bi seetaan naa lépp xool naa lépp mais des fois da ngay préférer noppi bàyyi mu avancer régime bi fi passé fi ñu yóbbu ñii duñ ñu fa yóbbu parce que mënul nekk bu benn ñu jiitee problème day am mais bu équipe jiitee problème du mën a am mënul nekk man gëw ma ne problème am ci gouvernance bi gëw ma ko quoi gëw ma ko xaw xëy na yéen ngeen gëm ko mais man gëw ma ko gouvernance bi ñu war commencé gouvernance locale bi mooy ñun fu ñu jëm ak gouvernement bi ñu ñu doon xeex projet bi liñ ci liir yëpp est-ce que c'est réalisable oui ou non après les audits parce que foog audit am ku leen ne gouvernement bi mën na départ ni job job job nii déedéet pour l'instant ñoom wàññi dund bi dong la ñu mën te loolu décret moo koy def wàññi dund bi la ñu mën. ak ku ñu mënti fal poste boo mënti dem ñoom biram ak ñoom ñëpp ci yem foog ñu accélérer audit mooy ku nekk fi nga nekk foog nga auditer ko ndax dafa am lu ñu naan siru président xëy na yéen doo leen xool mais man je suis bien. dem leen ci vidéo yi démb monsieur le président Bassirou Diomaye Faye bi mu demee takk chaîne bi ba ñëw moment bi mu toogee absenté na ba xappa-xappal ñëwaat taf tafal bëti toogaat concentré wu laa ne allah akbar gars yi dugg nañ ko parce que chaîne boobu daa am yu bëri yu muy donc système anti système je ne dis pas Sonko de mais Bassirou Diomaye Faye même bu dee vingt quatre heures soyez bien bienvenu dans la grande loge maçonnique parce que la république est maçonnique mu leen di neex mu leen di naqari c'est le système la république est maçonnique ñun suñu Sénégal bi c'est une république non mais elle est maçonnique démb seen takkuwaay yeeg kajang-kajang yëpp ngeen xam ne nous sommes dans une république maçonnique kooku ñun mënuñu ko bañ parce que fii laa leen doon waxee est-ce que xam ngeen luy état ba des fois combat yi foog ngeen xam noo leen ciy duggee est-ce xam ngeen luy état démb ku installé Bassirou ku ku gunge Macky c' est l' état non mais ñan ñooy état au juste ñan ñooy état kon état de di soog loo xam ne kenn mënu ko bouger kenn mënul bouger état bi état ak nation bokkul ñun peuple bi ñun ñooy nation te ñun la nation ñun ñoo war a développer li gouvernement soxla pas li état soxla parce que état day nekk te équilibré dëkk bi Bassirou président démb la ko dugg bi mu waatee ba pare toog noonu takk ca xam la ko siro bi balancé cib gars yi dafa am lu ñu lay jam dafa am lu ñu lay dugal loo xam ne leneen la ndax baatin yàlla jox ko jullit de jox ko catholique jox ko ñii xam nga yàlla ko mu jox baatin banni banni adam la yàlla jox baatin banni adam dem leen xoolaat samay image de gars yi man li may jàng ak li ngeen di jàng bokkul xam nga yéen yaa ngi ne ah la ñuy def déedéet man maa ngi ci yàlla bu ko siru bi dugg yàlla bu mu nekk président du ISEM yàlla bu ko gars yi dugg mais si même boo dul franc-maçon bu ñu la branché da ngay ñëw donc bienvenue dans la grande loge soyez le bienvenu soyez le bienvenu ñoom ñëpp erreur yi ñu commettre yëpp ça va se régler après parce que à partir de Bassirou Diomaye Faye lu bëri mën na ko génnee ci république bi pour bés bu Sonko waree de prestation de service mu def ko selon moom sa foi selon sa religion selon sa croyance. parce que nu sommes dans une république maçonnique donc laïque c'est que kooku foog ñu nangu ko ñu ñëpp d'abord balaa ñu am départ. moo tax lu ci sëriñ si bokkul ak ñëpp bokkuñu si c'est bien boo nañ dem. Parce que léegi nag nous sommes dans une république et comment maintenir cette république avec quel genre d'homme lay maintenir soxlaatuñu koo xam ne bu mate du bàyyi wala ku arrogant gars yi dañoo dund vingt quatre ans d'arrogance Farba Senghor di ñu saag di ñu jaay réewandi di def lu ko neex Farba Ngom ñëw def pire. Assemblée nationale boo xam ne il dit n'importe quoi barki dem nee naa leen woon tas assemblée bi ragal la. mais tey Ousmane Sonko premier ministre nga foog ne ku mel ne Amy Ndiaye Gniby wala Koura Macky wala ay Farba Ngom war nañu Ousmane Sonko ñëw war a def déclaration de politique générale am au mois d' octobre wala novembre ay Farba war a taxaw ci perchoir bi di wax ak Ousmane Sonko négatif il ne le mérite pas daam ñoo xam ne Ousmane j'aime trop le combat j'aime trop les débats d'idées mais Sénégal foog ñu nangu dara dafa am ñoo xam ne mënuñu si dara fu mu ni mu mënuñu si dara assemblée bi assemblée bi mérité wuñu jàkkaarloo Ousmane Sonko di wax quoi di jokkalanteeg moom mu nekk premier ministre ay kuram ak yéeg di taasu fii Amy Ndiaye ñibbi ak yi mu fi def saagante ndey yi femmes yooyu nga xam ne xamuñu sax luy assemblée ñun suñu débutants yi au lieu ay député on a que des débutants ñi nga xam comprendre ñu dara assemblée toog na yëng-yëngaaral déedéet Ousmane Sonko ne mérite pas d'être devant cette assemblée nationale là Ousmane Sonko même ne mérite pas même taxaw Amadou Mame Diop toog ni yëng-yëngaaral Ousmane Sonko di wax ci non non non Amadou Mame Diop fa nekk kilifa Ousmane Sonko ñëw di wax négatif négatif tout est à refaire ay ñoom Abdou Mbow ak ñëpp faxas tout est à refaire non non Ousmane Sonko premier ministre moom y' a beaucoup de choses qui doivent changer parce que man du ma may ay espèce humaine ñëw jàkkaarloo Ousmane Sonko taxaw si perchoir bi yoon may leen lu leen neex ñu wax ko lu leen neex suñu xol yi di daggaat fii ñuy dundaat ay crise crise sociale crise d'anxiété non loolu nekkatuñ ci dañ nekk si une nouvelle politique c'est-à-dire le développement ban genre développement ñun Sénégal ñun fan lañ ko jëmee. gars yi on a vécu vingt quatre ans de merde dans la dépression ñëpp doon ay sadique ba mooy Sénégal ñëpp ay sadique lañ il est temps qu'on apaise l'espace politique Daouda Diallo yëpp gars yi il est temps qu'on apaise tout ñu jël xaalis yi nag amnistie bi ma wax leen lu leer yéen ñi criminels yi xam nga man sama objectif lan la woon mais ñu fexe ba Bassirou Diomaye Faye waat laajal ñi may woo ñëpp ne naa leen na waat ba pare rek après on tout rek na waat ba pare. amnistie yeeg rapport Covid yeeg cour des comptes hey meer Nafi Ngom Keïta wala Falidou Keïta gars yi tous les dossiers seront sur la table Ousmane Sonko kenn bàyyiwu ko pour amnistie Ousmane Sonko liberté provisoire lañ ko bàyyee tous les dossiers seront sur la table. lépp loo xam ne nag Sonko la ko nit ñi doon saaga loolu moom isaan fu yoonam nekku si Ousmane Sonko toppul kenn mais suñu justice réew gars yi ma ñàkk sama nday xaalis xaalis bi dina génn dërëm par dërëm ñaar dërëm par ña dërëm parce que gars yi dañu dépouiller trésor public nouveau gouvernement duñ ci wax mais le trésor public fi mu waroon nekk ak loi budget bi ñu voté ñu nekk mois de mars trésor public di këjëm këjëm yi ñi xaar gaaw yónni ni Touré gaaw à l'étranger mu daw wuti ji ay financement pour ñu xojaat ñu dafi amee suñu alal day génn de ku rey nit yaa xam man topp ma ku rey nit topp ma ku violé topp ma ku dambaate topp ma kenn mais xaalisu réew mi laa leen ne alalu réew mi alalu réew mi gars yi day génn de politiciens yi nag du mu leen nëbb ñu bëri dinañ ci profité nekk ay opposant parce que ñu bëri commencé nañ ma woo no boo xamoon eh je m'en fous si su ma xamoon xam nga man lu ma xam xaalisu réew mi ñu leen laajte su suuf ci pet ñi nga xam inspecteurs yi commencé nañ tàkkal xam ngeen bu baax yu may wax yeen dage yi yeen dage yu yi fexe leen ba débarrasser seen bopp kayit yëpp génne leen teg sur la sur table milliards yi ñu xam ni ko ministre bi jëlee ñu xam la nax lan boo leen bañee dugal seen bopp sinon dage yu bëri seront emprisonnés je vous avertis beaucoup de daaj seront emprisonnés ah, ah gars yi ministère yi dina toj de éducation nationale nag mooy sama ministère foofu moom. les meilleurs hommes de l'éducation nationale njaga ñaaw lañ dëkk ñuy jifeer ñoom Joseph Pierre Ndiaye ñoom Alphonse Diop les meilleurs hommes de l'administration laa la wax ñi nga xam depuis Abdou Diouf ñu ngi ministère nekk directeur de cabinet kenn mënu leen laal Mary Teuw Niane xam na lu may wax félicitations mon père bi may jooy fii Mary Teuw Niane foog nga jege booy yi foog nga jege booy boobu élection amul woon Sonko bokkul woon Diomaye bokkul woon boobu ñu ngi woon mois de septembre bi ma naan les intellectuels Père Mary wu ñaan foog mu ñëw foog mu ñëw moo tax bi nga nekkee candidat ñu éliminé la ma ne alhamdulilah Père Mary ñaan Niane foog mu bokk. ndax man niveau sénégalais yi ku ci nekk pas yi nga gis ku ci nekk sa bopp xam naa ko ku ci nekk dama la xam maîtriser la am na beneen père bu dee Cheikh Birame Sarr moom it dina ñëw c'est le meilleur sénégalais au monde troisième bi c'est une maman. ñoom ñëpp Sonko foog ñu ñëw ñooñu ñooy les vrais hommes te ñun bi fi Macky Sall ñëwee lañ dem seen yoon zéro na fi ngam kay tàgge Macky Sall bi mu ñëwee la ñu gedd état ay ñoom Pa Alphonse Diop ñu ngi dund waa ñaga ñaaw les meilleurs directeurs de cabinet des ministères de l' éducation nationale lan moo leen fa jëlee politique parce que ñoom du ñu politique poste yi nekkatuñ ci ay politique foog ñu taxawu gaay liggéey diaspora diaspora tànnu député bi tànnu député bi bii ba buñ ko defee fëgg tànnu député bi seen nationalité yi gars yi foog mu génn non gars yi nag du ma nëbbu de waa PDS ñu bëri sax dañ leen di tëj de ñu bari ci PDS dañ leen di tëj man mënu ma wax lépp parce que xam nga rek nguur nguur la mais dossier nafi na kayi ngoom Keïta gars bu <laughs> bu toogee ministère de la justice procureur Aliou Ndao delluwaat fa mu wor dellu a ah, amoo frère. <laughs> saa i dëkk bi dina toj de xamu leen sax luy daw nii dëkk bi dina toj. ngay <laughs> di ngeen fi gis ay sàcc yoo xam ne dinañ jël gaaw xaalis dem suruxal ko si suuf remboursé kenn du wax lépp am na ñoo xam dinañ signalé wu dugal ay milliards ci état xool nit nu mu yoree milliards. ba tax ma kisaal demal boppam am ñu fi bàyyi il l'a fait exprès foog xaalis fi kii pour ñun nag ak suñu diaspora yéen laay waxal de député il sera carrément sénégalais même buy liggéeye fii diaspora bu Sénégal amatee commission des lois bu Sénégal amatee assemblée nationale dañu bëgg suñu député bi jaspora dem toog ne jaspora amuñu këyit jaspora carte de séjour diaspora xam nga lu ma métti dañuy d'accordul tubaab li mu wax ne ñun ay sans papier la ñu nekk suñu dëkk. nekk le foutre-tout de l'Afrique ma gis ñu traité Tahirou Sarr lu nekk. te lu Tahirou wax fala la décomplexé yem gars yi il faut il faut des visa waaye léegi man Sénégal man je prône pour que français bi fi jóge ñëw dafa war a am tey visa tourisme ñu koy fay loolu moom jeune ne badine pas là-dessus foog ngeen fay visa yi français foog mu am visa français yi fee ñëw dëkk si toog tabax naaj yëpp maa bañ ñun amuñu ko fii suñu yaay yëpp suñu pap yi fii ay baay quatre-vingt-dix-neuf ans ngay am fii yow mi étranger doo mosa moom sa kër français moom moom sa kër fii bu buñ la fiy suul juddoo woo fi juddoo woo France laa la wax am nationalité buñ la suulee suuf siñ la suul dañ koy loué say waajur dañuy fay chaque un an dañuy fay lu cher moo tax africain yëpp di préféré ñu leen di bëgg a bëgg a andi ci kees Afrique de. ñu bëri seen doom yaa ngi fi mais lan moo tax ñu leen di suul foofu ba suuf biñ la suul da koy fay parce que dëkkoo fa juddoo woo fa même boo amee seen nationalité juddoo fi moo am fi France. pour lan ñu nanguñu ko nangu Sénégal. bu leen français daf fay dee ñu defal ko yëpp commémoration suul ko te ñu amuñu droit fii est-ce que di ngeen mos a gis un sénégalais nationalité sénégalaise ñëw di liggéey gouvernement France du mos a am. kon nag Ousmane Sonko sa palais boobu bi may dugg palais man nuyu naa Kadhafi biir palais nuyu naa Nelson Mandela biir palais nuyu naa Mohamed Sis biir palais. ak kan yeneen président congolais boobu woon waaye président yi rafetoon yooyu te mu daan sant nuyu naa ko biir palais palais présidentiel. bu accueil présidentiel doon am temps Abdou Diouf président président bu ñu daan ñëw dañ daan teeru biir pare lañ daan dem si l'un des rares des jeunes bu ñoom tonno Amath Dansokho ñoom a bëgg a bëgg woon yóbbaale nuyu naa président yu bëri biir pale palais boobu nag mun ñu depuis 1960 les mêmes têtes ñoo fay job déedéet il est temps que nga jël jeunesse bi ñu former leen xam nga man lan lay bañ toujours y a les mêmes da ngay gis pas bu retraité ba xob bi daas ñenn ñi xoola pare la ñu deewee à quatre-vingt-cinq ans teg ko fan maintenant et la jeunesse qui a fait ses études et cette jeunesse là on doit pas les former est-ce que waruñu tey paa yi nekk pare dem retraite yëpp am 60 ans ñu jël leen jubilé leen benn jeune mu nekk ci bureau bi mu formé la un an deux ans nga dem noppalu te yàlla si et on va le faire yi gouverneurs yi mu ñëw ci yéen éducation bi des na lu bëri te yéen préfet gouverneur yen laay waxal li nguur daan nanguloo boo leen ko bañee dimbali nguur maanaam waruñu leen def ay chiffon yéen ñi commissaire di commandé troupe yi leen nguur daan nanguloo boo leen ko bañee dimbali nguur yow mi général de gendarmerie li la nguur daan nanguloo bunkeriser Dakar boo leen ko bañee dimbali nguur boo leen ko nangoo sànq nguur yéen tam nguur boo leen foggee ne loolooy defar réew bunkeriser Dakar def fépp ay gendarmerie mu ngi noonu yoonu palais de la république dañ ko bloqué teg ko fan te muy suñu palais ñun sénégalais yi ñoo koy fay li fay nekk si courant ak ndox yëpp ñoo ko fay ki fa dugg ñoo ko fa duggal suñu mbindaan la mais foofu yëpp on la bloqué ne leen seen mbindaan la leen gën Sénégal kese la loolu am yooyu yëpp foog ñu changé ko pour nekkaat ci beneen genre état gis gis nga ma rupture dama gis ñu ñëwaat ci temps Abdou Diouf ñëw palais photo woo garde rouge dem visite dem yóbbu élèves yi ñu def ay visite bind visite kii visite sortie pédagogique man yooyu laa gëm mais pas bunkériser le pays def ko comme un pays de guerre gëmatum ko te Ousmane Sonko mi ma gis moom bi ñu tém uraawam dina ko may mu wàññi bunkérisation di pays foog ñu wàññi bunkérisation bi ministre yu ñëw nag ministre yu ñëw kii gère éducation nga xam ne éducation sans formation égale à zéro boo diplômé Afrique boo ñëwee Europe nga xam ne t'as de métier te un sous-homme t'as de métier te diplômes ne te servent à rien bac du métier ay bac plus du métier wutal métier à partir du BFM Dambodj ñeme nga kaas lool mais ba tey dégguma formation à partir du BFM élèves yi war nañ leen commencé tasaare nag pour de bon kii defi électricité defi électricité kii defi bâtiment defi batiment kii defi banque finance defi banque finance kii même kii defi restauration à partir du BFM war na defi bac restauration coiffure bac coiffure c'est que foog ñu wuti kayit yi gis nga Sénégal foog ñu jàngal xale yi jàngal xale yi jaral leen ngeen ñëw fi Europe jël professionnel yaa ngi fi am na ñoo xam ne ils ont sacrifié toute leur vie en Europe nekk ci chantier yi di jàngale ba léegi ay formateur lañ ay ingénieur ñaata jeunes sénégalais ñoo nekk tey SNCF yore seen yore ereeru France yi di ko dawal combien de jeunes sénégalais ñooy liggéey SNCF combien de jeunes sénégalais ñoo nekk RATP gars yi foog ñu développer dëkk bi développement boobu ça démarre par l' éducation éducation nationale moo war a former les hommes qui doivent construire, construire le Sénégal. Ça, ça revient à l'éducation nationale, ça ne revient pas à l'armée nationale. Parce que ku fay dem l'armée, Koufaïdam, Daïfet, 18 ans. L'éducation, c'est à partir de 6 ans. nañu wàññi matière yi def si xelu xale yi métier ngir yàlla def leen si xelu xale yi métier gis nga xam nga lu ma jaaxal gis nga même la logistique la port gis nga logistique mooy docker yi ngeen di wax yéen journée 3000 lañ ngeen fay milliards yi génn port mbaa xam nga ne tey port antan na tey heure mille cinq cent franc wala heure mille franc barki sëñ Bamba billaahi walaay talaay billaahi wala talaay ñun dañu def xoola ay dañu bind c'est que man nekkuma ak ay boo yoo xam ne binduñu déedéet ñun dañu bind teg port mën na la fay heure mille cinq cent or port docker tey war na tey jomb tey di fayeeku tey Sénégal trois mille francs tey journée maa bañ maa bañ je refuse maa bañ tey métier yooyu tey foog mu dox Ousmane Sonko tey boo changé tey décor tey palais bi jël tey sëru rabal yi jox ko tapissier ñu créé ci ay matelas ay fauteuils yu bees ay yëpp lu bees tout marche tailleur yi intendance jëlal ay tailleur dugal leen intendance tenue militaire yi li ñuy jënd tenue militaire fii c'est ex c'est trop te xoola potentiel boobu yëpp a ngi Sénégal mais d'œuvre bépp a ngi Sénégal ba pare man moo tax bu ñu ma naan dañuy créer ay emploi te emploi nekk seen kanam di leen xool ñoom ñu koy ñëw di jox tubaab bi ba daalu militaire yi fii lañ koy jëndee di ko def si conteneur yi muy ñëw gëw ma ko à partir du BFM war nañ commencé teg xale ci axe former des cordonniers professionnels ubbiwaat usine bata bu nekk yoonu Sococim bi booy génn Rufisque à droite Yarax usines yi fa tëj yëpp ñu rénover ko kër yi fa nekk ñu toj leen parce que ce n'était pas vendable zone industrielle la société bu fa nekkoon kër da ngay ñàkk dañ koy toj génnee la fa dem wutal la foo dëkk mais pas foofu zone industrielle la. emploi baa ngi fi mais si ci kaw ñu fexe am made in Sénégal te made in Sénégal duo bi mën na ko def xam naa lu may wax. made in Sénégal ce duo là va le faire et peut le faire ñun ñëpp buñ jàppee man métier laa gëm gëmatuma seen diplôme bac yi ngir yàlla ay bac arabe jàng ji Tunisie maa jàng ji Égypte c'est bien beau mais tu n'apportes absolument rien au pays encore une fois tu n'apportes rien au pays dara andi woo ko ci dëkk bi am na boo yoo xam ne man sama booy bi dafa tudd suuf dem Matam laal ni suuf bi di ma décortiquer suuf bi di ma wax suuf bi ba ma ne ko booy pour lan nga ñibi si waat Hollande mu ne ma yee eh, grand Sénégal fii doom dara ñibbi si waat na nii Hollande koo xam suuf suuf lay téye suuf wax la suuf bi mooy kan suuf bi diw mooy maamam suuf bi lii lay pëp produire si la ma wax ba ne suuf boobu boo boo ko wisee bëgg defaraat suufu noor bi nii joor gi da ngay ñëw suufu maataam ngay dem tibb suuf ñëw defaraat ko engrais jaru sax jaar fenn da nga koy ñëw rek di ko sotti ay côté Gossas Kaolack foofu yëpp mën nañ ko wat defaraat environnement bi defaraat suuf si ci kaw lan suuf bi nekk maatam li mu contenir moo bëri. wala ñooñu ñëpp dañ fi nekk foog ñu woolee les Indes ñu ñëw di créer Inde yaay ñëw créer noor Kajo bi boo yàngeeg lépp. par pour lépp mais xool noix de cajou bi même noix de cajou Inde yaa koy gérer gars yi jàngi leen métier bàyyi leen ma seen bac la jeunesse. ministère de la jeunesse Ousmane Sonko ngir yàlla école de métier yi Ablaye Wade bi woon te mu takkaloon na case des tout petits gars yi lekk nañ xaalis bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp. bu gosaas matériels yi bees saakaa fa nekkoon matériels yooyu xoola gars yi dañ ko mujjee jaay jaay ay matériels yu jar ay huit cent millions la fa Ablaye Wade dugaloon. fee ngay taxaw di dagg say bant di harmoniser planche yi muy ñëw jaay nañ lépp ñan ñoo ko jaay kenn xamu il faut que ñu defaraat Sénégal pour ñu defaraat ko ci métier lay commencé pour ñu defaraat defaraat ko ci dévouement personel lay commencé éducation la xam nga ñan ñoo ko réglé woon y avait une ONG privée bu monsieur Touré jiite wu ñoo ñu gënoon sadik éducation parce que inspecteurs yi dañ doon jaar chaque quinze jours ñu jaar man EPS chaque quinze jours y avait monsieur Birame Faye qui venait contrôle contrôle ce qui fait que tu es obligé d' être carré sur la ligne man loolu laa gëm mais loolu kan moo ko génnee Macky Sall ñëw def leen ñoom ñëpp ay politiciens. poste yi nag ministre bu ma gis nga politique ministre man bu ma dajal ci terrain politique wala nga ñëw di wutaat ay base politique ay Thiès ak Birame Souleye Diop je t'avertis de dem di wut ay base politique ay Thiès ak on va vous emmerder monsieur le premier ministre tu es devenu maire de Ziguinchor ah léegi nag il est temps que nag suñu mairie tam nga am confiance délégué suñu booy yi kenn mu dawal à moins que Cheikh Tidiane Dieye bàyyi poste am président conseil régional ñëw ci mairie bi pour ñu libérer la yow nga liggéey parce que t'as du pain sur la planche. Sénégal li ñu sumb nii pour mu takk carrément foog nawet bi passé parce que fii ak nawet bi audit la ñu mun def préparer nu ñuy songe nawet bi gagné nawet bi à partir de septembre nag bu ñu changé assemblée nationale. commencé waat teg jargon yi Ousmane Sonko def politique générale ñu xam ban vision la ñu am par rapport à la politique générale du niveau gouvernement su boobaa ku nekk xam fi nga jëm. lenn laa leen di ñaan on reste au calme gars yi foog ñu dal bañ topp manipulation yeeg wax ju bëri ji ak teesante bi man nekkatuma ci loolu maa ngi ci projet de société yi comment faire pour développer le pays ak fan la ñu jëm ak dëkk bi. félicitations encore une fois monsieur le président son excellence Bassirou Diomaye Faye. Félicitations à son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Félicitations à tous les membres du gouvernement. El Malick Ndiaye nag laa gisul ci liste bi ndax El Malick moom loo ko mënti waxal moom mooy lom de dialogue ti ni mu maîtriser Dakar Ousmane Sonko maîtriser ko Dakar kenn maîtriser ko Dakar Abbas Fall El Malick Ndiaye c'est des éléments essentiels c'est des éléments essentiels ci gouvernement bi ndax ñoom ñëpp la ñuy waxal ñëpp la ñuy jox nopp ñëpp la ñuy déglu ñu kenn Birame Souleye le chef je te laisse en paix maintenant géral suñu réew bul dof dina jàpp la gay nga xam nañ ko fi nga nekkoon nekk fa parti ba lu nar a teguwul ci yoon na ngeen daan def bureau politique pas de régler vos problèmes de parti au palais les problèmes de parti ne vont pas se régler au dem leen seen bureau politique ni ngeen daan waxante ngeen waxante ko fa dëgg yi tegu fa pour ngeen jëm ci kanam au cas où nag ngeen bëgg andi xaaj ak seen problème day am seen biir yéen da ngeen am yéen am ñi ngeen àndaale seen biir kon yéen yéen la ñi ngeen àndaale yéen ñëpp la kon chaque fois rek ñaari réunion mooy am yéen seen décision ak yéen ñëpp seen décision kon yéen seen décision ak yéen ñëpp seen décision basumo basumo mbare su ko non ko abidje iba faamale rax day tas kër koorax sa njaboot mu diviser leen nafiyu nafiyu